fi ñu toll nii mën nañ ko bàyyi ba fii ak sax ba coow lépp coow li dalaat ñu soog ko yëkkati justice moom daa baaxoo di doxee noonu moom même bu dee arrangé wu ñu jàpp parce que yàgg boobu ñu yàgg ci kaso bi mais leen tey durée woon dix a saytu dossier bi waaw yoon du ko dal ci kawam kenn du ko yegg parce que bu dee crime délil bu ñu lay toppee tey bi ñu lay téye laata ñu lay àtte la mënta mënta weesu six mois mais bu dee crime la hmm. bu bi ñu lay téye avant ñu lay àtte amul limite donc mën na def deux ans. est-ce que forcément cour ñu jëm ou bien. ñoom waa. bu dee bu dee euh, juge bi yor dossier bi jàpp na ne ñii war nañoo dem àtte. Hmm. faw ñu dem foofu noonu léegi nag cour d'assises dañoo soppi tur bi léegi. Hmm. tuddee ko chambre criminelle. ok mooy cour d'assises tur ah, mais foofu rek lañ mën a dem. Hmm. chambre criminelle rek moo leen mën a. waaw man question bi ma doon wax mooy dafa am si journal dama dégg kenn koo xam ne mooy femme boobu bokk ci président Macky te ñu convoqué woon ko ne xaw ma dafa yor boru nangam. jéggi jóob waaw jéggi jóob mu ne mu ne fay na. Mhm. pour du question ko dafa fay. parce que dafa yore mhm. waaw mais dafa fay rek. waaw léegi gis waaw waaw loolu laa bëgg ngeen ma ci ay lay kon. état mën na la toppee dara ne la boo fayee nga génn nga fay ko bu caag ni yaa ko def waaw mais da koy fay rek pour génn waaw bu dee wàllum xaalis lañ lay toppee mhm. loi bi dafa ni boo ci joxee tuuti une partie pas lépp rek une partie boo ko joxee doo dem kaso léegi nag joxe boobu noonu tekkiwul ne da ngaa nangu ne ñu may toppee maa ko def. loolu la lay laaj loolu la léegi joxe boobu noonu. tekkiwul loolu nee na c'est sur qui des de ses avocats. voilà loolu la moo gën moom la préféré. waaw que dem kaso que dem kaso waaw bu ñu ko attee. waaw xaaral gis ne liñ koy tuumal nekkul. dañ koy delloo xaalis bi. la mu ko séné woon dañ koy jot delloo d'accord donc joxe boobu li mu joxe nii lan la ko permettre mu. bañ a dem kaso euh, loolu rek jur prix prix bi maanaam li mu mën a jëndee jënd dem bañ a dem kaso bi moo doon loolu. tekkiwul ne nangu naa ne maa maa def lii non tekkiwul loolu de. juste pour ma bañ a dem kaso. de façon enquête bi day continuer bu ñu ba ca cappaandal ga ñu setal ko. Mhm. dañ koy delloo xaalis loolu loolu mooy caution njaay daal njaay luwaa daal war ngaa bind. kéemaan léegi léegi euh, justice bi ñu ci war a joñal bari léegi kii moom kii moom ci vol de la lay laaj. Mhm. man moom tey moom laaju gars yi laa fi nekk. <laughs> lu am solo la lu am solo la non yu ci bëri dama ko maîtriser moo dama lay bàyyi rek. waaw <laughs> maîtriser woon dara. <laughs> ah laajam njaay. dara xam na ne dafa am ci yu ma toog ne teg. Euh, vol de bétail. waaw vol de la wax nee na. Mhm. crime la wala délit la. Mm-hmm. mu ne ensuite bu fekkee ne dañoo ñëw di ko def mu jàpp ci kenn wala ñaar yóbbu leen police aussi euh, lan mooy doon seen seen vol crime la crime la woon nag mais ci nguur ci nguur Macky Sall lañ ko criminaliser léegi def ko délit nga xamante ne bu ñu jàppee ne li ñu tuumaal yaa ko def dix ans moo ci gën a tuuti mbir boo dégg ñu ne la crime def nañ ko crime criminaliser crime foo ko dégg mm-hmm. fukki at moo ci gën a tuuti amul moyen de fukki at. déedéet crime moom mënta mën maanaam ëttub attekaay bi atte crime yi moo tudd chambre criminelle kon yow maanaam bu la jàppee ci crime ah, ma ngoog. loolu tax drogue garaaw drogue bu ma see bu bu xasee bu mat kilo. waaw mais attends mais crime bi. ci ban crime lañ lay wax loolu parce que dafa bëri ay. crime crime waaw dafa am meurtre. waaw crime. waaw mët rey nit lépp lu jëm ci. waaw boo bëggee xam li différence bi entre délit ak. crime crime lépp lu jëm ci rey nit crime la. waaw moo xam meurtre wala assassinat wala infanticide. waaw wala jur doom rey. Euh, rey ko tamit day dugg ci wàll boobu. anam moo tax may wax. waaw drogue. bu xasee ba mët kilo rek crime la. waaw bu xasee ba mët kilo moom fukki at moo ci kii. donc un kilo drogue égale dix ans. minimum minimum laa la wax de minimum mën naa dem ba vingt ans. ak xeetu drogue bu mënti doon muy yamba. Mhm. muy héroïne muy cocaïne. muy beneen bi xew léegi nu mu tuddati bi xel xaw ma. suus suus suus xaw ma waaw nu ko. gulugulu lépp luy xeetu drogue daal moom. <laughs> donc un kilo drogue. Mhm. un kilo yamba. Mhm. égale dix ans au minimum. un kilo cocaïne égale dix ans au minimum. un kilo héroïne égale dix ans au minimum plus plus drogue bu ñu la ko jàppee bu ñu la tëjee kaso ba pare day am alamaan léegi alamaan bi dañuy xool kilo drogue bi ñu la jàppee li muy jar. Mhm. ñu multiplier ko par trois oh. bu dee kilo yamba lañ la jàppee dañuy xool kilo yamba lu ñuy jar ñu fay loola ko ñetti yoon alamaan boobu ngay fay waaw léegi li ma la doon laaj laa bëgg nga leeral ma xam nga danga ne ma buñ la jàppee ci rey rek yow jàppal ne endossé gum nga fukk balaa daraa xew waaw mais dama ne est-ce que dafa valable ci yëpp parce que mhm. rey nit ci loo tayul rey nit ci loo tey yooyu yëpp dafa am. Mhm. ba mu looloo tax ñuy ñuy ñuy ñuy wax des fois meurtre ñi ne assassinat mu jëm kaw. Mhm. ci ban façon la wala rey bu xasee ba am rek. Mhm. nga tey wala ak nga ñàkk tey fukk yi leeragum na. waaw dafa am ñeenti façon rey nag ci luwaaw Sénégal loi bi dafa distinguer ñeenti façon rey mm-hmm. rey bu njëkk bi mooy li ñu tuddee homicide involontaire mooy kuy mm-hmm. dawal oto rey ci kii ko mm-hmm. boobu moom dañ naan teyoo ko boobu am na daan boo xam ne moom la ñu prévoir maximum bi mën naa dem ba cinq ans même bu fekkente ne rarement ngay gis ku ñu condamné waaw ay un mois trois mois six mois